الحمد لله خير واهب وهاد سبحانه من علينا بنعمة الأولاد ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن ومن اتبع هداه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله القائل في في صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما bokki jullit yi ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ni mooy ngën ji aji may di ngën ji aji gindee di tudd sellam ba subhaanahu wa taala moom mi nga xam ni moo ñu baaxe ak ak njaboot ak ci doom di seede ni amul benn buur ba yeyoo jàng budul moom subhaanahu wa taala moom dong bokkaale ñeelu ko waaye di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab jaamam la di ndawam di ñaan yàlla mu dotti ci moom xeewal ak mucc ak barke waaye sotti ko ci njabootam ku laab ga ak àndandoo yu baax ya ak képp ku topp seen njub fa keroog bis penc yàlla na ci yàlla boole mbokki jullit yi ginnaaw loolu ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax aw melokaan woo xam ni tax na mu nangul ay jaam seenum njaam ci moom melokaan yooye tax mu nangul ay jaam seenum njaam gi tax mu sàkk leen wàcc leen ci kaw suuf yàlla mu ni am na ci jaam ñi ñoo xam ni seenum njaam nangu naa ko man yàlla seenum njaam njaam nangu naa ko te doon doonu doon jaam yàlla moo tax yàlla wàccuñ ci kaw suuf wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun su borom ni bind ma nit ñeg jinne yi du dul ngir ñu dooni jaam nangul ma loolee nag am nañu ko suñu borom nangul wax ci alquran lañ ñii moom nangul naa leen ko yaa leen ci yàlla boole ñooñee nag dafa am ay melokaan yi su suñu borom ni dañ naa mel moo tax ma nangul leen ko da caa bokk ñoom day dañuy baxel li ma leen dénk ci njaboot dañ koy bàyyi xel di ñaanal seen njaboot di wax ni yàlla yàlla ñu may ci suñu soxna yi ak suñu njaboot yi lu sedd suñu xol yàlla ñu def ñu nekk ay njiit ci ñi ragal yàlla kon ñoo xam ni seen njaboot dañuy ñaan yàlla yàlla def leen ci lu sedd defal leen ci lu sedd seen xol te la cee sedd seen xol mooy njaboot gi bokk ci rangu ci sàppet ñi ragal yàlla te jiitu ca yàlla mu ni ñii day lii day bokk na ci melokaan yi tax yi ñii ma nangul seen njaam ma nangul leen ko melokaan yii bokk na ci yiñ mel te mooy baxel seen njaboot ci ñu leen ñaanal loo tax mbokk yi suñu xutba tey ñu bëggoon koo joyal ci njaboot gi doom yi yàlla dénk lan moo ñu ci war mbokk yi nit mënta jox yitte lu mu mën a doon ngir mu mën a doon mënu ko jox yitte wala yitte jam koy jox ma ngay aju ci na mu xamee mbir ma da mbir ma toll ci moom rek yitte jooju la koy jox moo tax lu nekk da nga war a xam ban dayo la am njaboot ban dayo la am pour nga mën ko jox yitte di nga ko war a jox mbokk yi njaboot muy ay ak ay doom nit ki du ko jox boppam nit du jox boppam ay doom lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu ma yasha yahabu liman yashaau inaasan wa yahabu liman yashaau dukur aw yuzawijuhum dukuranan wa inaasa wa yajcalu man yashaau aqima innahu xakimun wala alimun qadir alimun qadir mu ni yàlla moo moom li ci asamaan ak suuf lépp yàllaa ko moom moomee la suñu borom la nee na mooy bind lu ko soob mooy sàkk lu ko soob yaxluqu maa yasha mooy may ku ko soob ay góor may la wax ay doom yu góor kon doom may suñu borom la amul lenn la doomu aadama jàpp war a jàpp ni mooy tax mu am doom ji mu am lu mu jàpp ni moom la am ba tax mu am doom yi mu am nit ëpp la ko te amul doom kon yàlla na doom moom mu ne yàlla maa koy maye al al waladu hibatun min allah doom may ku jam bu jóge ci suñu borom la mais may may ku ma soob ay góor yi kese di may ku ma soob ay jigéen yi kese di xool ku ma soob ma boole ko góor ak jigéen di xool ku ma xool ku ma soob ma xañ ko njaboot ndax man yàlla samay jëf day tegu ci man alimun qadir ku xam laa ku ne la nga yelloo ak la nga àttan waaye kuy natt laa ku nekk la nga àttan ma dogal ko ci yow kon njaboot maanaam may suñu borom la may goo xam ne nag dafa am lu mu la ci sant dafa am lu mu la ci sant mooy nga sàmm njaboot gi ci njub yi ko yàlla binde mu judduwaale ko nga sàmm ko ci loolu nit ku nekk bala yàlla yi sàkk ba ngay juddu bala yàlla yi bind dafa am num la mooñee nam la mooñee mooy li muy xaar ci yow mooy njub gi responsabilité bu la dénk ci kaw suuf nga mën koo doxal mu jur njariñ àdd ak alaaxira nan la la façonné noonu la la mooñee mooy mooy fitra fitrat allahi allati fatara annaasa alayha la tabdila li xalqillah dalika diinu qayim walakin akthara annaasa la yaalamuun borom bu ñu dundaree ni ni ma mooñee doomu aadama mooy diine ju jub ji noonu laa bindee doomu aadama njub gi may xaar ci noonu noonu laa ko bindee noonu laa ko mooñe kon mbokki jullit yi pour ñu xam danga bi ñu war a jox njaboot gi kon dañuy xam balalu njaboot gi kon may gu jóge suñu borom la muñ suñu borom am fu ñu ko jaarloo pour ñu jaarale fa njaboot gi ndax nit la yàlla dénk kaw suuf nit mooy kilifa kaw suuf njaboot gii la yàlla jox yàgg yàgg gi ñu yàlla jox yàgg yàgg ñooy mujje kaw suuf ñooy mujje réew mi waaw ñooy mujje gox bi ñooy mujje réew mi ñooy mujje àdduna bi tout tànk yi mag ñi moom faw yàgg yàgg dañuy dem yàlla yeex waaye dañuy dem kon ndaw ñi ñooy mujje gox bi mujje réew mi mujje àdduna kon nit la yàlla dénk kaw suuf kon nit dafa dafa war a defaru bu defaroo lu mu lu mu yilif mu defaru waaye nit bu yàqoo lu mu yilif mu yàqu comme tout tànk yooyee nga xam ne ñooy doon maji maji ëllëg dafa am nuñ leen war a yore da caa bokk pour nit ki mën a defaru ngir ëllëg lu mu yilif mu defaru nit ki jokk gi mu jokkoog boromam bañ a dagg buum gi jokkale nit ki ak boromam nga xam ni ca na ko yàlla binde bala muy gën a àdduna ba mën a mën a boppam buum googu dogul benn yoon ndax nit dafa soxla relation diggante ak borom pour mën a dund moo tax na yàlla binde nit ci biiru ci biiru ndeyam nam fa wéeteeg moom di def la muy def ci moom ba nit sotti gën a àdduna loxol yàlla loolee nit da koo mënta ñàkk pour dund dund bu jag ci kaw suuf ba mu xësee judd nag loxo yi ko yàlla teg muy waajur yi ñoom la yàlla sas lool muy yàlla joojee ñu mënta ñàkk ñu sàmmal leen ko ñoom ndaw ñi kon waree fi njëkk ci waajur mooy tuut tànk yi bu ñuy génni mu ñuy xàmme ñu xàmmee ñu xàmmee ci maanaam xam yàlla ak nangul yàlla loolu rôlu waajur la ci njabootam mu fexe ba xale yi bu ñuy gimmi bu ñuy xàmme ñu màggaale maanaam xam dayab yàlla jox yàlla cër tàmbalee ci li gën a ëpp solo nit di ko jëf ci xeeti jaamu yàlla yi muy julli nga fexe xale yi màggaale lool ndax relation bi gën a rëy di jokkale nit ci ak borom mooy julli ku sàggale julli sa diggante sa borom dagg na amatoo benn connexion sa diggante sa borom te marade yin doomu aadama bu fekkente ni connexion am diggante borom dafa dagg mala yi ñoo koy tane ci àdduna bi mënta def lu jàpp nit digganteem ak boromam bu fagul digganteem ak i mborom mënul jag laa taxuunu allaha wa rasula wa taxuunu amaanaatikum wa antum taxlamun su borom mu ni bu leen war seen digganteeg seen borom ngeen ngeen di war seen digganteeg seen i morom kon li ku jokkalewul sa digganteeg sa borom sa digganteeg seen borom mënta jox mu rafetewul digganteem ak ay morom ak boromam digganteem ak ay morom mën mën mënta rafet kon xale bi yaa ngi tàmbalee ci di ko jokkaleeg boromam ci ko tamal julli moo tax salaa salaam ni muru awlaadakum bi salaati li sabain digal leen gone yi julli buñ amee juróom-ñaari at rek lañu ñu commencé digal ñu julli bu dee góor saa yu sax ñu ci jàkk ji wammatal ànd ak ma ñëw ci jàkk ji day doy sëkk sax xale bi màggaale julli bu fekkee dafa gimbi rek dafa xàmmi rek gis ay waajuram fonk julli loolu rek day tax xale bi fonk julli xale bi kër gi muy màggee dafa war a yëg ni julli moom mënta ñàkk dafa bokk ci dund doomu aadama dafa war a yëg ni dund julli dafa bokk ci dund doomu aadama ci kër gi muy màggee environnement bi muy màggee daf cee war a màggaale loolu kooku su màggee faaw day jox day jox julli yitte mais bu fekkente ni kër gi mu màggee gisul benn importance bu ñu jox julli bi ci yaay bi ci bàyyi bàyyi du dem jàkk ja yaay bu julli jotee ma ngi ci ay yitte boppam bii gi sax julli jot na xale boobu mënta mënta mënta mënta fonk julli kon aw sax la ci ci ci ci ci waajur yi bu dee xale yu góor yi kili góor ñi waajur yi bàyyi yi bu ñuy ñëw ci jàkka yi tam ànd ak ñoom buñ xëcc am juróom-ñaara ñu neen xam ne dem jàkka dafa bokk seen dund et que effectivement dem jàkka dafa bokk ci dund julli de julli jàkka du dalay neex nga ñëw mu neex la nga naqari déedéet warka'u ma'a raaki'iin su borom jëleen julli di ànd ak jullikat yi ci jàkka yi sallallahu alayhi wa sallam mu ni su ma bañul woon wuute mbooloo mi en tant que kilifa gi moom bu wuute mbooloom doon am moom moo ko war gën a mën a wuute nee na su ma bañul woon wuute mbooloo mi dinaa wut ku may wuutu ci julli gi mu ànd ak benn délégation wër ci quartier yi ñi dul teew ci julli gi ma la fii di jël seen kaw ngeen nga xam dayëpp julli ci jàkka ja kon nekkul soit boo xam da lay neex rek nga ñëw bu la naqaree nga toog obligatoire la ci ku góor mu dem ci jàkk julli ci waaw jigéen ñi ñu organiser kër yi ba ba ba ba ba julli nekk événement ci kër yi nga xam ni xale yi dañu xam ni julli léegi programme la ci kër gi loolu yaay yi ñoo koy organiser su ko defee tamal xale bi julli mu koy jokkaleeg boroom ci ci ak teel mu tàmm loolu waaye ñu koy yëgloo yàlla ñu koy yëgloo yàlla lu mu def lu jaaduwul rek lii kat lii kat su suñu borom bëgg ko lii kat yàlla bëgg ko lii kat lii la yàlla bëgg bu defee lu yàlla lu yàlla bëgg ñu encouragé ko dégg nga déggal ko ci mu xam ne muy sóoraale yàlla ci ci ci ci am dundam kon jokkale nit ki xale bi ak boromam mooy li njëkk a soxla ci waajur yi beneen bi mooy jéem tabax nit xale bi ci xam-xam tabax ko ci xam-xam ndax xam-xam kat moom mooy li yàlla njëkk a jëflante ak doomu aadama bi mu ko bëggee dénk kaw suuf wa allama aadama al asmaa kullaha la yàlla njëkk a jëflante mooy xamal aadama lépp lu war a ñëw ci kaw suuf rek mu war koo soxla muy outil da koo xamal aadama war ko jëfandikoo loolu di di ñu wax importance su xam-xam kon xale bi bu xësee commencé jàng école ba muy jànge ngay topp am jàngam di topp am jàngam ndax école ñaari liggéey rek la am ci xale yi fay xëy mooy di leen jàngal ak di leen yar di leen former di leen tabax loolu nag kër gi da cee am rôle bu rëy rëy waajur dañ ci am rôle bu rëy bu ñu war a jouer te mooy bu dee njàng bi bu xale yi ñëwee exercice yaag ya ya ci aju ñu ci topp xale yi mais di dem ci école ba résultat yi xale yi am ñuy jox ko jàngalekat yi ba xam njàng bi bu weexee lu ko waral bu lan la soxla pour gën a avancer su ko defee loolu ñu ciy jàppale xale yi ci wàllu xam-xam wàllu yar bi nga xam ne itam école baa ngi koy rôle école bi la kër gi dañ cee am waajur dañ ci am dégg nga dayoo bu maanaam na am waar wu rëy wuñ ci war a bay te mooy di bàyyi xel xale yi seeni yar ak seeni teggin kon njàngum xale yi tamit lu ama am solo la ngir waajur yi bay ci seen waar bokk na ci nga xam ne li ñu war a bañ a sàggane la di ciy farlu ci góorgóorlu aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bokki jullit yi bokk na ci li nga xamante ni waajur yi waruñu koo sàggane ci xale yi mooy di leen bàyyi xel ci yi nga xam ni daf ñoo dab di yu bees yoo xam ni yu mënta ñàkk seen dund la ñu leen di bàyyi xel ca lañ koy jëfandikoo muy lépp loo xam ne ay appareil électronique la ci wàllu téléphone yi ci wàllu ordinateur yi ak ci wàllu télévision yi yi nga xam ni ay jumtukaayu communication la yoo xam ni day jokkale nit ki ak adduna bi yooyu nga xam ni daanaka dafa bokk suñ dund léegi loolu waajur yi am nañ part de responsabilité bu rëy rëy rëy ci bàyyi ci xel tout tànk yi xale yi ndax kat effet bi appareil yooyu di def dafa dafa rëy dafa rëy lool ñam yow mag mi nga xamante ni sax yow majeur nga léegi-léegi appareil yooyu jël la yóbbu la foo xam ni du woon sax fi nga war a jëm ndax ñaar la appareil yu di di di di di di di di maanaam di di di di jëfandikoo moom ngay jëfandikoo pour pour utiliser appareil yooyu ñaar yooyu ngay jëfandikoo nag mooy ñaar yi ëpp solo ci doomu aadama ci lu muy lu muy jëm ak lu muy bëgg ak lu muy bañ muy sa dégg ak sa gis borom subhanahu wa taala mu ni hal ata ala al insani xiinu min addahri lam yakun shay'an madkura inna xalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi fa jaalnaahu samian basira suñu borom mu ne ndax dafa amul jamono joo xam ne ñëwoon na nit nekkul woon dara duñ mën a tudd ah kay suñu borom maa sàkk nit ak nam ko sàkkee responsabiliser ko te mooy natt ko ci ay ndigal ak i tere dénk ko kaw suuf jox ko nag ñaari outils ñaari jumtukaay yoo xam ni li muy wut ci kaw suuf ñaari yoo ko ci mën a dimbali mooy ma jox ko ma def ko muy dégg def ko muy gis jumtukaayu dégg mbokk yi ak jumtukaayu gis amul lu xool di bëgg mbaa mu koy bañ lu dul foofu lay jaar ñaari canal yooyu lay jaar lu nit di bëgg wala mu koy bañ rek ci ñaari canal lay jaar muy canalu dégg ak canalu gis ñaari jumtukaay yooyu lu nit mësul gis mësu koo dégg mënu ko du ko mas a bëgg te nit lu mu bëggul du ko gëm moo tax appareil dafa dafa dafa dafa sensible lool parce que toujours mu ngi lay jox li ngay dégg ak li ngay gis boo xëyee ñaata temps ñaata temps ngay jox sa appareil bi ci li ci dégg ak gis boo ko xoolee lu yéeme lay doon su ko defee loolu nag yow mag mi dina la bëgg loo loo warul bëgg yenn saa yi dina la bañ loo warul loo warul bañ dina la wax loo te te nit moom lu ma xës lu la ne ci xol bi rek mooy moom moom mooy moom la cër yi jëf moo tax di nga wax loo warul wax di nga dem fa warul dem di nga def loo warul def di nga bàyyi loo war a loo war a loo loo war a def di nga bàyyi loo war a wax di nga bàyyi loo war a mel ndax lan ndax la ca xol ba te jaar ci bët yi ak ak ak nopp yi c'est comme yow mag mi lay def noonu yow mag sa xale bi toll ci ñu tabax ko surtout lim lay yàqal ci ab ci ci temps surtout lim lay yàqal ci temps kon xale bi toll ci jàng warut am temps bu muy yàq doomu aadama amul temps bu muy yàq rawatina xale kon bàyyi xel xale yi ci appareil yi lu am am solo la appareil xale waru koy waru koy jëfandikoo lu bari. rawatina nag lam cay jëfandikoo di adduna boo xamante ni moom maîtriser gu ko kon nañ bàyyi xel xale yi ci appareil mais bàyyi xel xale yi ci seeni àndandoo ci seeni àndandoo ndax yenn saa sam dafa ni almaru ala diini xaliilihi nit ku nekk ci doxalinu ci dundinu ka ngay sab xarit rek ngay dund àndandoo dafa mën a jeexital ci ci nit moo tax xale du tànnal boppam xarit waajur yi loolu seen responsabilité ku seen doom di àndal rek dañu war a xool koo kan la ndax méngoo na ak kiñ bëgg niñ bëgg seen doom mel ko wala dégg na kooka mel bu dul loolu rek nañ ko tere ki muy àndal muy ñuy fexe bu dee ànd muy ànd ak ñoo xam ne bëgg nañu mel ni ñoom ndax nit moom ka muy ànd rek na mel lay mel kon nit ku nekk na sa xarit di mel wala fi dañuy wax ni war ma sa xarit ma war la ma wax la sa jikko war ma sa xarit ma wax la sa jikko loolu saa salaam tënk ci xaddis boobu kon ñu bàyyi xel ñi nga xamante ni ñoom la xale yi di di di di àndal waaye tabax xale defar xale da ciy bokk xale bi dafay soxla ñeewanteg waajur yi ak seen yërmande ak seen nooy waajur warul nekk ku tar ci njaboot ku ak njabootam di daw koo xam ni njabootam fu mu ko gisee fitam fitam dem waajur dafa war a ñemeloo boppam njabootam di toogaloo ñoom di naanaloo ñoom ataaya di waxtaan ak ñoom